question rek juste nañ ñu bëri mel ni ministre ku mel ni président lan moo ciy taxawaalu. en waaw ci ci wàll boobu euh, damay bëgg a wax rek ne euh, en tant que président de fédération euh, wax naa démb maak ministre wax nañu ak ki nga xam ne mooy manager am parce que baaxoon na tamit yu mel noonu balaa ngay wax nga jël information yi ba xam mbir mi nu mu tëddee parce que wax yi dafa bare woon def nañ ko tey si suba man sama bopp. naa naag euh, Gana Gueye wax ko fi mu taxaw na fa taxaw parce que ñun ñi nga xam ne wax euh, suñu kilifa réew yi nga xam ne wax nañu génn nañu boo pare mais askanu football ak askanu Sénégal yëpp te même tey si parcours bi ñu def nit yi dañ ma doon yuuxu naan ganna Gana jàppaleen ci donc dañ ciy jàpp parce que xam nga tey li am solo ci àdduna bi ñu toll mooy ne euh, liberté bi ñuy oote mooy maanaam ak ak yeleef yi mënul féetee boor mu ñuy naan ñii lii dañ leen bëggal ci lu baax amaana nit mën na ci bañ ànd mais kooku bu ci àndul waruñ ko ko nangul donc monde bi c'est un monde planétaire ku ci nekk xaj na ci tey moom dafa am ay ngëmam am li mu gëm ci biir loolu dañ ko si nangu war a nangul liberté am defe naa loolu li nga xam ne li mu xaatim ci kontaam dafa leer euh, li nga xam ne nag wéerul ci diinam weerul ci cosaanam kenn mënu ko ko teg par force te defe naa tamit position PSG tam wane na ko donc ñun waxuma waa football bi rek askanu Sénégal comme ni ko président Macky Sall wanee yoon bi ministre Matar Ba wanee ko ñun ñëpp ñoo war a jàpp ci loolu parce que li mu posé comme acte dafa nekk loo xam ne actu ambassadeur du dëkk la. parce que tey suñu joueurs yi tamit dañeen ràññee fépp si àddina am na taxawaay bu ñuy taxawaa taxawee rek ci bitim réew day indi sooxee si suñu cosaan si suñuy valeur te loolu duñ ko nangul kenn donc xulloowuñu xeexuñu. nangul nañu nit yi ci seen biir dëkk li fay doxal nañ ñu bàyyi nag ñun suñuy ngëm suñuy jëf ak su ñuy li nga xam ne mooy suñuy ngëneel suñuy valeur ñu dund ko ni ñu ko bëggee te kenn benn ñu ci bund xotal. écoutez par rapport à polémique qui s'est installée par euh, su le fait que euh, notre joueur Gana Gueye donc n'a pas participé au dernier match du PSG ce que nous pouvons dire c'est que dès que nous avons été informés euh, donc par les réseaux sociaux bien entendu. Nous avons pris le soin de parler avec euh, un, un, de ses conseillers, un de ses managers pour connaître les tenants et aboutissants et nous, on l'a fait avec euh, monsieur Matarba. Et quand nous a expliqué, euh, nous avons tous convenu que euh, Ghana était dans son bon droit. Il n'a violé aucune des règles contractuelles qui lie avec son employeur, le PSG. Mais surtout, il est resté ancré dans ses valeurs, dans ses principes, dans sa foi qui font la sénégalité, qui font l'africanité de tout un continent. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je lui ai envoyé un message, euh, j'ai voulu lui transmettre cette force de l'ensemble des Sénégalais, l'ensemble de la famille du football, puisque l'ensemble des Sénégalais, le président l'a fait et l'a bien fait, et de manière nette et sans bavure, et dans la lignée qu'il a toujours été euh, la sienne, je pense qu'on le sait, il a déjà eu à se prononcer sur cette question. Nous respectons toutes les cultures, Nous demandons simplement que les autres en fassent de même pour notre culture, pour nos valeurs, pour nos principes. Et Ghana n'a fait que cela, sans bruit, sans tambour, ni trompette. C'est les autres qui ont parlé, mais je pense qu'il n'a violé rien du tout. Il a juste rappelé qu'il a aujourd'hui des valeurs qu'il porte en tant qu'ambassadeur de notre pays et de notre continent. Donc et pour cela, je pense que nous ne devons pas accepter que pour promouvoir certaines libertés, on pose un dictat sur d'autres libertés, sur d'autres valeurs et sur d'autres principes. voilà. Euh, mbégte bu rëy comme ni nga waxee dañ ko dekkali parce que benn waxtu dañ ko taxawaloon si ndigali suñu euh, euh, kilifa muy président Macky Sall pour ñu jublu ci li nga xam ne moo doon beneen sas bi nga xam ne sasoon nañ ko suñu bopp askan bi sasoon ñu muy lan ginnaaw 2018 ñu delluwaat coupe du monde bi parce que lii barewul defe naa guleet la sax Sénégal ñu dem coupe du monde jugee fa dem coupe d'Afrique dem finale dellu coupe d'Afrique gagné ko delluwaat coupe du monde donc muy wane fu tolluwaayu jéego yu Sénégal yëpp ci euh, kattanam ci askanam def te loolu defe naa buñ ko amee tamit buñ ko fàtte mukk damay baaxoo rek di ko wax euh, nit ki loo am ci ngërëm ci koo xam ne dalay jàppale amaana njiitu réew la mais ñun football bi dañu gis ni mu jàppee ni mu accompagner pour que ñu egg si fii mu continuer nag di ñu ñaax pour que li nga xam ne moo ñu may lii mooy maanaam booloo bu ñu booloo mankoo bu ñu booloo wuti ndam li ñu continuer ko euh, euh, développé ci biir askan bi. donc tey li ñu def nii mooy tollanti li ñu defoon le le 7 février bi ñu jógee kan ba dugaat ci euh, koñi Dakar yi loolu nag dama ne rek ubbitee li nga xam ne la ñu jëm la mooy yóbbu trophée bi fopp ci Sénégal ak suñu njiit yi nga xam ne mooy ministre Matar Ba ak waa ministère am. comité exécutif fédération waa douzième gaynde waa Alekaza waaye Sénégal yëpp fu nekk ci gox-goxaan yi nga xam ne coupe bi war na fa mën yekka nga neel la Sénégal parce que day tax nit yi gën a sësu wéeru si seen réew parce que lu mel ni euh, trophée yu mel nii loolu la amee njëriñ gën a boole nit yi gën leen tax ñu gëm seen bopp li koy wanee tey mooy ne si yoon bi yëpp nit yi liñ ñuy sas dootul indiwaat coupe bi rek nee nañu 2023 coupe bi na fi toogaat mais liñ ñuy sas mooy lii di ñëw si suñu kanam muy lan Euh, coupe du monde bii ñuy jëm laaju ñu leneen lu dul coupe coupe du monde defe naa na trop waaye maanaam defe naa ndam mooy maye fitu wuti ndam donc comme sas nañ ko bu ñu wàññil suñu bopp dara dañ siy dem ak maanute mais ak gëm suñu boppa parce que dañu war a gëm ne ñun Sénégal fu ñu ànd nekk benn déglu suñuy kilifa ñun ñëpp ñu bàyyi xaajoog ŋaayoo bàyyi wàllu maanaam lépp loo xam ne mën na indi euh, euh, réeroo suñ ko defee. ci ndimbalu yàlla euh, defe naa ndam li ñu am nii sutura si ñu am def fii sax dëkk fi te yàlla na demee noonu. beneen slogan bi mooy lan manko dem wuti yeneen ndam. wuti yeneen i ndam moo xew léegi parce que manko wuti ndam defe naa mooy caabi passe partout la rek dañ compétition bu ñuy demati rek dañuy dugal si caabi si kii bi rek bunte bi rek mu ubbeeku waaye itam defe naa ne mën nañ koo lal ci programme yëpp yi nga xam ne suñu kilifa président Macky Sall mu ngi koy def. pour dëkk bi jëm kanam tey gis nañu xar mu dëkk bi ci yu bare mu ngi soppeeku dañu war a continuer si loolu man rek wuti ay ndam ay ndam ay ndam ci lim bu amul appa du dëgg donc loolu la daal donc man wuti ndam